ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci kenn ci jàmbaari lislaam duñu wax Sénégal rek yam ci waaye umma islamique bi en général ndax taxawaayam en tant que dëgg-dëgg imaam parce que li yàlla wax ci téeram bu sell bi di alxuraan fii ba bés pénc du xew yi waaye firi beeg déggin biñ ci am ak interprétation yi dafay laaj ku koy def maas jamonoom. xam li xew bi réew meeg bitim réew comprendre lu géopolitique la ngi dox diggante réew yi xam ni askani di évoluer di soppeekoo gannaaw jàmmaarloo gi dox abadan diggante way aji ngëb yi ak wa akhlu shaytan imam alin badar Ndaw bokkon ci personnalité yi xamone li xew li lepp di ci yee ma damay ci khutbam ak waxtanam yu bare bare amna ñu bari ñi wax naan wax ci kaw minbar ak kalifa go xamne dafa wan gannaaw boromam bokul ci diina tabbar yada abi lahabin dañ koy jang fi ci minbar ghayril maghdubi alayhim wal dallin fi lañ koy jangé ci minbar gis bu set ñu jang ko ci minbar kon di wax ne taxaw ci minbar di wax kaddu yo xamne da fay jëm ci ña nga ñoo ak yaq la dama ne loolu jang sa diina la koku boy wax ci système bi waxulo ak buur ndax sax ñun amatuñ buur far waxuloo ak président système ngay waxal système bi man la yow la fii lañ war a fàttalee jaami yàlla yi ne leen système bii ngeen di dund fii lañ ko war a fàttalee doonul système bu yàlla gërëm président dafa ñëw fekk fi système bi dafay demaat bàyyi fi système bi kon erreur bu rëy la taxaw bëgg a dox diggante wax kat yi nga xam ne ñooy taxaw ci kaw manaabir yi ne mbirum siyaasa moom bu ci kenn wax ci kaw minbar mbirum nizaam bu ci kenn wax ci kaw bar waaw wax ca nag ànd nag coono ñu ne lu tax ñu ne ndax ña ko jiite ay kalifa lañ dañ leen a war a nangam ak nangam déedéet lii du mbirum kalifa mbirum système la. jëmm ji moo fi bàyyi ko ñu koy ñaanal te itam di ko jaal njabootam ak Sénégal gépp ndax imaam Ndao imaamu Sénégal la woon booy xool li ko dal ci dundam moo xam ci ay nattu pexe noonu ak fitnaal. lépp bëgg sénégalais xépp seeni bët ak tegu ci yoon moko waral te xamone risque yi ci nekkoon nangu woon nako ko dëkku itam lepp ndax sénégal ba tax na kum niñu ko diiné santé ñu melni buñ fi bayiko ñuy fatali seeni bax bax ngir yërmande borom bi tertu len ci kuru dëgg ga ñu mujj ñun ñëpp. diina ji suñ borom nee ku jóg pour jëm ko sigil dana la nattu motax yeen ñepp paré len pour dékku nattu bi ci man day dama ne suma faatu won ca kasso dama nan alhamdulillahi rabbil alamin ndax lan dama gestu gi sénégal yépp jàppale dëgg sama xel dal ma ne lii mënuñ ci dara waaye nag alhamdulillah imam daw jaar jaaram ci tënk mi ngi ci won aduna bu su vendredi 6 mai 1960 ci dekk bu ñaan Ndalane malik fété ci département bu Kaolack précisément ci gox bi di Gandiaye bi bi nek tout tank lu ko waajuram yobbu daare kokki bu serigne Ahmad Saxir Lo fa la leer quran jangale na fa itam gannaaw gi jaar na ci yeneen daara ci mili ni daara sëñ Mor Mbay Siise bu jaarem keur Bakary jaareen Mako Guy ba ci daara Abdoulaye Niass bu Kaolack kon buñ doon teunk ndam mën ngi leppum daf ko jagleel diine l'islam ba ci tukki bi mu njëkk def génn sénégal ci njàng alcorane wu sell la ko amé gannaaw benn concours bu ligue islamique mondial organisé won en 1987 mu jël raw gaddu gi ñu moy ko bourse mu dem mauritanie jangi yalla defaat mu bok ci ndongo ya fa gënoon xarañ lolé mayaat ko mu dem arabie saoudite ngir yeggali formation ba mu noppé ci lolou téwul dafa wat sénégal ndax jàpp na ni mission dëgg-dëgg ci biir réew mi la te gëmoon na ni itam ni li fi newoon depuis jamonoy maam ngir faagaagal diine pas-pas ak ngëm-ngëm moo fi nekk ba tey te faaw doomi réew yi rawatina doomi daara yi aveniru senegal ñor taxaw temm te booloo lii moo newoon mission Imam Ndao démocratie doxu fi laïcité doxu fi ay naxante képp fi ne benn élite poignée d'hommes bu fi représenter intérêt yi ñeneen booloog ñoom di exploité askan wi lii da lañ fi gis kon nag ngeen lu rëy lii leen seen borom jox mbokk yi pour ngeen exploiter ko faaw ñu nekk benn mbokk mi wax na ko léegi moo tax ñoom na ci seen stratégie yi gën salté diviser pour mieux régner daara yi mbootaay yi association yi nañ nekk benn jëm daara yi tey bu nu bennoo muy ña ca biir daara ja ak ña génnee daara ja nekk ca biir marché ba nekk secteur informel ak ña ca génnee nekk ci administration bi luñ bëgg ci réew mi mooy am gis nga suñ mag ñu baax ñii fi jiitu kenn d'accordul ci li fi leen ne sunu sëriñ sii fi jiitu woon kenn àndut ci plateforme laïque bi fi ne kenn maa ngi yor nii ci sama portable fan yi di ko benn code de la famille boo xam ne Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko bindoon biñ bëggee indi code de la famille bi booba la bind code de la famille yóbbu ko ci mag ñi fi nekkoon sëriñ si fi nekkoon ñëpp signé ko ñenn ña sax signé wuñ yem ca comme ni euh, nu mu ànd sàmm jikko yi def dañoo bind teg ca signé bind dëgëral ne lii lañ gëm ci même année yooyu ci la Cheikh Abdoul Aziz Sy rahimahullah na yàlla yokk leer moom itam bind benn xasida wane ne ànduñ ci code bi ànduñ ci constitution bi bokk yi nañ xam loolu ànduñ ci waaye gëmoon ni mission bii mu newoon mënul ànd ak lekk ger mënul ànd ak dundee ay financement mbaa ndimbal yu kenn xamul fu mu imam dafa taxawal ay tool di fa bay noor ak nawet moo xam gerte xaal ñambi mboq ak yeneeni produit di bay di dundee waaye tamit di livrer lu bare bari ci marché bu Kaolack maanaam samp yi fi boppam yu koy may mu mën a indépendant moom boppam ba kenn du ko tënk par rapport ak ay position am waaye ci loolu imam dafa demoon bay créer ay projet communautaire plan de développement local yo xamni ni dafay permettre population bi ko ci système bancaire bi nga xamni ni li ci nek ci ay loraange moo ëpp téeméeri junni yoon. plan de développement local bi gis nga buñ ko doxalon mhm. quelques années banque classique yëppay daan. té itam nit dootul lebati xaalis ñu tek ci centime. Ah, intérêt hmm. intérêt ndax dafa am ci biir lu ñuy et eh, finance populaire. Mhm. boo xam ne peuple bi ñoo koy créer delloowaat ko ci biir peuple bi loolu ñi nga xam ne dañ bëgg a dund ci suñu suñu deret bëgguñu ko duñ ko seetaan gis nga ngoon gi jël si noonu maa ngi waroon def waa quartier bi jigéeni quartier bi benn rencontre kër soxna Ami Diouf pour gaaral leen plan de développement local bi dañu commencé woon di structurer région bi di di sillonner région bi structurer région bi yëpp murit Tijaan kaadir Ibaadu ci biir structuration bi fu ñu fi dem dañ naan leen bu leen xàmmee jullit bi ak chrétien bi ci solidarité sociale. d'habitude nag nit yu mel nii maanaam ñoo xam ne yàlla def nañu xam li xew yor xel wu sell wi rax ci doole ñu autonome am liberté wax seen xalaat te duñ ci laam-laamee ñoo xam ni aussi mënuñoo gëstu seen démb wala seen juddu. génnee ci lu mun a yàqee seen der bu ngeen seetlu parcours yi Mame Ndao jeunesse am gépp du ko jagle lislaam mësul am temps dugg ci lu ko doom doomi aadama di xeebi ëllëg ñu mel ni nag bu amee benn kuréel bu ñu jàmmaar lool te malheureusement seen discours arrangé wu leen benn pexe la kuréel yooyu di am mooy faagagal leen mooy nañ ko éliminé te dund Imam Ndao mënuñ ko wax fàtte dossier terrorisme biñ ko tuumaaloon te lepp ne woon ay sos yu tegul fenn defon nañ ci vidéo spéciale ngir leeral lu mu démé chat ba chat ci biir prison boobilee liñ bëggoon moy ray ko parce que mbir yi dañ koy wax mu leer ngir ëlëk bu ñuy netali wala même bu déwul bu génné ab génn walu doomi lay doon jangoru koy éliminer nank nank diko ko bu mu jeex tak jékki naa rek dégg ben ay wax nit yu bari ñuy wax di wax wax yu ñaaw ci man wax yu gën a ñaaw yoo xam ne man mënuma ko nettali. ci foofu nga nekkoon. foofu ma nekkoon. gis nga mbooloo moomu di ko. doo leen mën a gis. da ngay dégg maanaam ngi mel ni fu ma nii ak tabax bi. Mhm. ñoom foofu lañ foofu lañ leen placé doo leen mën a gis. am na xeet yu bon yu ñuy dugal ci néeg bi yoo xam ne doo ko mën a moyyi. am na ci guddi goo xam ne dama toog ba ay deux heures de matin affaire bi ñu pompe bi gën a néeg bi mënatuma moyyi. ma wàcc wàcc yu méttee méttee méttee méttee day faatu gis boobu weñ yi dañuy yendoo dee ci néeg bi jaaxal na ma ndax li lay wàcculoo di rey weñ loolu mën na mën na mën na am jeexit ci sa wér-gu-yaram mën na la sax alak lii laa ko nekkee ba ñu ma jëlee ndar andiwaat ma mhm. defaat naa ak euh, rëbës ay ay jour gannaaw si ka jaar naa ci beneen camp bu ñuy tuddee Cap Manuel mhm. Cap Manuel ñu waat ñu fa yóbbu ñu nag camp pénal nag foofu la torture yi réel commencé ñaar yooyu dañu continuer ñu boole ci yeneen ñaar yoo xam ne moom gan fa muy sofaas boo xam dañ koy sofee sa bi bu ñu seen machine boobu doo mën a gis mooy comme machine de chauffage yi ñuy taal ci réew tubaab yi jërëjëf moom la ñuy taal fii Sénégal moom la ñuy taal ci sa sama chambre man buñ ko taalee sama ñàkk bi day sotteeku deuxième jour noonu troisième jour sama bopp bi noonu dafa ubbiku mënatuma lekk surface boobu mooy benn bi mais des na rayon ay rayon yoo xam ne vingt quatre heures sur vingt quatre ñu ngi koy yebal ci n'importe quelle partie ci say say say sa yaram hmm. boo gisee ne ma kontaan ci wax ko dama leen doon wax ne fii laa koy waxee te fii laa koy dénoncé ci biir cas bi. Mm. génnee danaa ko dénoncé. donc lii lépp doomi réew mi bu ñaan imam Alioune Badara ndaw dund na ko Sénégal ci diiru ñaari at yu tegal juróom weeru kaso ñu xëy bés ne ko defoo dara ñibbil sa kër waaye lii prouvé grandeur maanaam màggaayu ak dayu imam mooy li ko dal bari na ci ku muy tegu ci kawam kookee jaare ci di ci yóotu beneen mbir. waye imam ndaw dafa genn ne lajul kenn ndampay topul kenn fayantoowul dama sante yalla bu baax ndax euh, suñu borom xamal na lu bari ci jaar-jaar bobu lo xamne suñu woon jaar-jaar bi duma ko xam ci sama rew do ma koy sante sama borom te gëm na ni itam yalla lepp lu def rek euh, dogal la go xamne noppi na ci faawu mu am euh, njàngat yi juddo ci biir projet bi doy na ma sëkk man walis ndàmpaay. ndàmpaay. waaw ndàmpaay nag. man bu sama devoir ma di ko toppante kenn. ndax mbir yu bëri yoo xam ne jarul wax. moo tax ba ma laajee mbirum ndàmpaay dama ne déedéet ba topp topp topp ma leen. mu jóge ci preuve bi continuer nekkaat ci la mu newoon muy jàngale diine ak yee aji ngëm yi ci fi àddina toll ak naka la ci jàmbi mën a muccee. benn ci projet yi gënoon rëy mooy yeesal daaraam bi def ko bërëbu sàkkukaay xam-xam bu mag a mag te itam dëppug jamono waaye ndax xam ngeen ni ba ni muy jee boromam état dafa lànk bañ koo jébbal autorisation ngir mu jëmmal yéene bi mu amoon maanaam gaa yi jaamu seytaane yi jiite senegal dañ ko topp ba ci nooyam gu mujj ngir xooxatal ko di ko xoññal tey newatu fi. ñu mën ko jappé soldaru diiné l'islam bo xamni jëmum lañu mën a gis rek waye yéenam ak taxwayam batay mi ngi fi te ñun ñi nga xamni ñoy ay sopem ñoo ci war am taxawaay li jëk liñ ko lon moy dajaleel ko kom ngir mu jotat wër yaramam suñu borom def li gën waye campagne bobu nonu batay mi ngi wëy ngir xaaliss bobé waron ko fajj lepp lu ko wayé yéene rek mën a dugg ci dara ju mag gi mbugon taxwal yaakaar nañ ni benn ci luñ ko mën a fayee lii la. lien wu Kopar Express bi mi ngi ci description vidéo bi de ki que numéro Wave ak Orange Money bi. kon taxachal bi tey loolu woon ñu ngi gën gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.